buñ ne xam-xam am na salum salum dëgg dafa tax yéen ngi gis mbokk yi fii ñu ne xam ngeen ni du salum dong waaye ci diggi salum la ci àllu salum bi fi nga xamante ni xam-xam moo fi indi nit ki waaye fi nga xamante ni jaaxle tawat tiis gu fi tax jàmm bi indi fi boppam booy dem satisfaction képp ngay àndal ndax njariñ gu fi ne. jërë ngeen jëf mbokki internet Sénégal. borom naaru góor alhamdulillah borom cabinet Seydina Ousmane Seydina Ousmane borom naaru góor naaru góor gi nga xamante ni ci wàllum kàttan benn du ni ci réew mi ak sax ci bitim réew ndax américains yi ñoo ko tappal étiquette bi mu yor ngir xam li mu li muy jariñ te doomi réew mee ko moom bi Seydina Ousmane mii ngeen jàkkaar lool yéen gis njaq yi yéen gis soble yi yéen gis gàllaaj la ilaha illa allah sondeel ya doj wi nga xamante ni tey lu doy waar da ciy feeñ ci wàllu mystique gu yéeme yéeme Serigne Ousmane tey dañoo bëgg a waxtaan ak moom ndax général mussa Fall dañ koo wàcce Serigne Ousmane waxoon ko addu woon ci laataa sax élection yi ba ñu naan sax est-ce que sëñ bi amul lu mu gis leneen lu bokkul ak lii mu ñu wax waaye ñu gis ni boobu ba léegi l'histoire l'a donné raison encore une fois ci général Moussa Fall ak Pape Alé mi nga xamante ni tey moom la ñu def directeur RTS Sine Ousmane borom cabinet Sine Ousmane borom naaru góor waxoon na ko itam ñu gis ni am na yeneeni poste yoo xamante ni mi ngi koy bëgg wax tey te faw mu leer balaa boobu dañ koy bàyyi borom naaru góor borom cabinet Sine Ousmane mu nuyu mbokki internet yu koy seetaan Sine Ousmane nuyu naa la. salaali Muhammad wa alaali Muhammad xaysu nakk tarjum marjum lal jum laraj لا جملة رد لا جملة رد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله wasalaatu wasalaam ala afdali xalqillah muhammad ibn abdullah rasulillah sant yàlla julli sunent bi ziyaara waajur yi di leen ñaanal yàlla di sàkku si ñoom ñaan bu baax a baax waaye yéen moom xam naa ne bu ngeen amutoon fu ngeen foofu sax daanaka duñ fi mën a dugg waaye xam naa ne daal lu ne yéen ko ñeme moom mm-hmm. waaw fii moom ku ma fi ñeme fekk bay dugg ba ci biir mm-hmm. moo tax bu ma gisee ngeen ni jéem a jege feneen dama dama tiit moo tax gis nga ni ma leen ni ma leen kee. yoo xam ne kenn kenn kenn du ko wane waaye nag fekkee ñu fekk moom dina am loo xam ne rek dinañ ko mën a may jaamu yàlla yi Seydina Ousmane nag tollatut fu ñuy koy présenté. waaye nit ñi danañ gis tey xam-xam danañ gis mbiri maam yi danañ xam ne lépp loo xamante ni ku mos nekk dara fii ci réew mi rek fii nga fii fii nga samp te ñoom xam nañ bu baax a baax a baax a baax a baax fii luñ fiy defaree ak luñ fii dindee te yaakaar naa ne àll bii nga fekk ñi fekk ñi fii nii. fekk suñ cosaan suñ judduwaay suñ jaaruwaay kooku yaakaar naa ne mbiri jamono rëbb na jaxasoo na waaye fii doon am taataa ba léegi boo demee fekk fa tepp-tepp incha allah rabbi buñ la fekkee ci biir àll bi fekk si la ci biir xarfa xufa yi ci biir njaq yi sa yaram dafay gaaw a tàng lu waral loolu bari na yoo xamante ni bëggoo cee wax bari na yoo xamante ni mënuñ koo filmer tey fii ñu la fekk sa yaram teel a tàng sëñ bi lan moo waral loolu. waaw mbir mu nekk rek. ak ni ku nekk fi mu nekk ak fi muy fi mbiram di tàngee fi yaramam di tàngee fi muy aaloo ak fi nga xamante ni fi lay tollee téepee bi lépp lu mu bëgg mu nekk rek mu nekk si kàttanu yàlla. waaw daanaka gis nga yàlla boo ko nekkalee rek mu nekkal la te dangay toll foo xam daf lay jox mbir yi boo bëggee rek mu nekk mu nekk. su boobaa nag lépp loo xamante ni luy jëriñ askan wi luy jëriñ réew mi la ci ngay dox waaye képp koo xam ne ku taxaw di yàq la wala dara fii fi la ñuy falee képp kuñ bëgg fal dañ lay fal fii te képp xam nañ ne yaakaar naa ne li nga xamante ni mooy suñ xàmb yi lim sax ñaata xàmb la ndax loolu képp koo xamante ni ku fi dugut assuver doo xam dëgg-dëgg la fi nekk te li ngeen gis jot a gis ni yaakaar naa ay mbir la yoo xamante ni mooy mooy kii waaye daal en tout cas daal mbiri mag ñi la te gis nga tey lu mel ni tey doj wi ngay gis nii su fekkee ne yàlla def na tey nga jël li nga xamante moom mooy cent onze xobi xobi xobi xobi pofton dama koy maye xobi pofton nga jël ko ut meewam nag meewam gëlëm meewam bëy nga def ko si géej di daal di sëpp këyit xob boo sëpp nga génne teg ne fekk yaa ngi gas sa digg kër nga sëpp si meew mi jàng fàttee teg ba ba cent onze yi jeex nga daal di suul ko jël doj wi teg ko ci kaw mm-hmm. kooku yaakaar naa képp boo xamee kër kilifa yi dëgg dëgg dëgg dëgg boo demee da nga gis sa digg ëtt ba benn doj wu mag kooku mbir yooyu la waaye yeneen yi nga xamante ni moom moo ci laxasu ak yii fii waxuma la nga fay sangu waaye boo fi duggee rek lépp loo fi andiwaale rek dafay waaw boo fi duggee lépp loo ënd nga xam ne da nga gis nit ñu naan dañ koy yónnee nangam mu utiliser ko ñu ne mbir ma dafa yàq wala nangam waaye yàlla def na ne fii moom boo fiy dugg rek lépp loo ànd ak toon daf koy toja rab ak cat ak liggéey ak umoo lu mu mën a doon te bis boo fi sangoo génn waxuma la weer waxuma la dana waaye balaa semaine boobu di jeex. Mm-hmm. danga gis loo xam ne mu soo jàpp ne am-am gaawee na noonu wala wërsëg wala mbir yi. bu fekkoon ku war a folli nga danañ la gën a yëkkat te bu fekkee ne ku ñu war a fal nga da bëgg falu da nga yëkkati ko ba yemu ci yàlla moo xam ngay ut bayraag lu mu mënti doon. buñ la xasee ba sang si njaq yi génnee la côté ndeyjoor nga génne càmmoñ ñu def la ñett <laughs> dugal la si njaq bi nga xamante ne ndey <laughs> kooku buñ ci paree ci yow rek incha allahu rabbi càngat gu fi gën a tuuti baqara baadu kullu aaya zuyinal ak baqara baadu kullu aaya lii ba mu jeex ak yemey ànd rek boole ko ci wàllu rand ci nandoo ak timin timin ak was wasor ak yeneen ak yi nga xamante nii dafay jàpp ci ak li nga xamante ni moom mooy dëgg-dëgg ismailahil azam buñ la rëkkalee ba pare defar lu ñuy defar tëju zikkar lu ñuy zikkar demal nga doxi sa soxla fépp foo dem dangay am daam fii bu ñu fi yekkee fu ñu fi nekkee émission bi du yegg ndax sëñ bi bu nekkee ci xam bi yaram bi day tàng yaram yaramu tàng boobu laay bañ émission bi bañ a yegg moo tax dañ koy bàyyi mu wàcc ba yaram bi sedd. ñu biir kër gi waxtaan moom ci xam ci actualité ci révélation ndax ñu ngi waar yoo xamante ni tey bu génnee ku ne dina dar gémmiñam ndax fii ñu ko fekk kat fii la daan toog naan dafay am mu am fii la daan toog di joxe ay résultat yoo xamante ni kenn xamul kañ la danga may fekk ci biir. ñu daal di waxtaan léegi léegi. dem na bi dañoo fekk ci biir njaq yu doy waar xamb buñ ko waxaan fétiche dañ daan xaar xam-xam bu ñuul ñu gis xamb gis xam-xam bu ñuul nga dendale koog bu weex. mbiri kurus mbiri turu yàlla gis mbiri xaatim mbiri alxuraan lan moo tax ñaar yooyu nga mën cee liggéey ñaar yëpp te kenn ku nekk mën a gis résultat ci boppam. waaw sant yàlla beneen yoon julli ci yonent bi sallallahu alayhi di nuyu mboolem waa dëkk bi yëpp di nuyu tund yëpp di nuyu askan wi dëkkee fi ndax tey moom da ngeen ña fekk suñ cosaan mooy fii si Saloum su ko defee nag nit amul lu dul mbokkam amul lu dul lu dul cosaanam nit ñi buñ di fàtte seen ginnaaw yaakaar naa ko boo ñëwee fii fekk fii ak ni mel da xam ne ya ca Dakar ak yeneen yóbbu ko feneen te terewul ya fa war a nekk mang nga fa. kon loolu nit ñi nañ bàyyi xel bu baax a baax seen mbokk ak seen seen i cosaan ak seen i jamono nag rëbb na jaxasoo lool waaye du tere fi doon taataa di am ba léegi boo ñëwee fekk fi tepp-tepp xam-xam rek nag moo wóor nit moom dina tappale ba am ay milliards tappale ba am ay kër am lu nekk mm-hmm. waaye tappale ba am xam-xam mm-hmm. doo ko gis jàng ba bëgg dee rek mm-hmm. kii nag nekkatut jaam boo xam ne dañuy naataable ci wàllu xam-xam wala dara ñu si sant yàlla bu baax a baax yàlla def na daal ñu liggéeyee ko samp ko mu nekkoon depuis ci maam maamaamaat yi ci bàyyi ba tey mu nekk si ñun ëllëg dañuy dem tamit mm-hmm. keneen ñoo continué ko waaye képp koo xam ne moom wax dëgg yàlla mm-hmm. xam-xam rek moo la ñor mm-hmm. doo gis jëmm ji mukk di ko romb képp koo xam ne njariñ waaye nag lu may wax toujours du nit ki moom da koy neex rek mu oo Seydina Ousmane wala mu ñëw jëflante moom déet dafay am lu jot am lu yàlla nam mooy tax nit ki ñëw. te bu nit ki ñëwee nii mbir yi di gaawee ak ni muy tëree rek mu xam ne lii mbiri baatin dëgg dëgg dëgg dëgg moo ci laxasu ndax yàlla daa def ñuy liggéey mbiri baatin yi. te gis nga dafa am yoo xamante ni am na ñoo xam ne mënu ñoo as si fii ci man am na ñoo xam ñu ngi sori nekk ba àll. dimbale ma ngir yàlla nga ut koo xamante ni daf lay bindal fii jiidiha fii jiidiha fii jiidiha mu bind ko mille cent onze. Mhm. mooy lim bu ci gën a ndaw. lim bu meewam mbaam nga koy boolee nga sangoo ko juróom-ñaari fan soo paree lépp lu doon ut muy këyit ak lu mën a doon léegi tey nga téye ko sa loxo mhm. wërsëg dina la ñëwal ba danga nga yem relation bayre tubaab ak ay relation wala wala foo xam da nga fay liggéeyee bëgg ñu nomel nga gën a jëme kaw mhm. boo ko liggéeyee rek di nga gis lu lay yem ñi nga xamante nii nag dañ koo bëgg te mën a jot ci fii nii mbir koo bëgg da nga koy koy jënd da nga koy jaaye bàyyi sa temps bàyyi sa it lépp ngir ñëwoo fi bis boo génnee da nga xam ne ni nga fi duggee woon ak ni nga fi génnee bokkul dëkk bi yaakaar naa ne ay hélicoptère lu nekk wàcc na fii nii. ngir ñëwoon seet si ay góor yàlla yoo xamante ni fii lañ nekkoon mission bi nag du jeex mukk dafay toxalu di dem ci kii dem ci ki dem ci kii alla kum assi rek nga doxal nga nga do nga doxal mission bi yaakaar naa ne bëri na fi bu fekkoon ne taxut ak suutura ndax sëriñ dafa war suutura waaye buñ tuddoon tur fii ñu xam ne ñi ñuy gis di leen coow yëpp ñu leen yéem ci am am ci wërsëg ci tur ci lépp hmm. ñu xam ne fii lañ leen defaree waaw fii nag ñu ngi Saalum yàlla def na daal ñu ñu xam mbir yoo xamante ne liggéeyee ko xamb yi bu buñ paree ci lépp lu ñuy liggéey yàlla xam na ne amatul dara looy soxlaati ci wàllu wërsëg ci wàllu bayra ci wàllu tawfiix ci wàllu ba pare xàmb yi maanaam boo duggee lépp lu ënniwaale rek da koy toj. mais xamb yi dama fay gis mbir moo xamante ni nga baal ay fétiche sax lay gën a nduru mën naa ni ci waxin nduru naak mbiri franc muy doj woo xamante dañ koo teg wërale ko ay xeeru géej wërale ko ak ay sondel nit ki taxaw ci kaw nga koy liggéeyal ba sondel yi fay jeex mbir nit ki tàq ba ki te kenn dootu ko mën a fay. kooku foofu noonu gis nga looloo tax yeneen côté yu bari lu nangu ma ngeen jël ko waaye yàlla daa def gis nga doj woowu ba si nit taxawee. Mm-hmm. doj woowu mooy foo xamante ni dënn. dafa daanu ci benn carrière lépp tasaaroo ba mu des benn moom benn doj boo xamante ni dara laalu ko kooku mën nga koo wër lu ay at ko am. boo ñëwee taxaw foofu ak lañ ko liggéeyee ba pare nga jël li nga xamante ni moom lañ soxla nit ki taxaw ci kawam nga taal sondeel yi bu ko yàlla dimbalee ñu liggéey li ñuy liggéey ba pare te benn fayul mm-hmm. jeex na mbindeef mënootu la tax mu fay ci àddina bu buñ paree wërale ko sang ko si yuñ koy sang gis nga côté boobu euh, quatorze njaq moo ci nekk quatorze moo jàpp waxaabu turu yàlla waxaabu yeneen côté yi gis nga yi ak yeneen yi nga xam ne duñ ko wax ci écran duñ ko wane képp ku yàlla nar dimbale nag xam naa ne mooy ñëw fii mais njaq yi dafa am yoo xamante ni dafay wex xat ba boo ko yëngalee sax ñi fa taxaw buñ ko laalu sanguwuñ ko dañuy xam ne bii daawe waaw waaw loolu loolu mbiri maam yi la rek mbiri baatin rek gis nga loo xamante ni gis nga tey loolu nu nga gis ñuy sotti noonu mooy ci wàllu gën a googu ku nit koo xam ne dafa um wala ñu téye ko liggéey ko ba mën ba ba mu yàqu. nga xam ne kii amatul am na ñoo xam ne amoon nañu ay millions lu nekk seen bitik yëpp daanu nañ ña ngi gis ko xam dafay ñëw mu ne la amoon na juróom bitik léegi amul sax lu mu suukaree baraada moo tax bi ngay baax booba nga war a dem defaru sa bopp te nit fekk sampu ku nekk da ngaa war a fexe ba xam say sarax te xam say sarax xam sa biddéew xam sa tabayaa xam sa rawaxaan mënoo koo am ci lu nga wéedu ci ko bu wér koo xam dafa am xam bu baax am baatin bu baax a baax su ko defee mu mën laa taxawal jaarale la fi nga war a jaar. ginnaaw gi nga xam sa sarax. xam li ngay génne toujours ak fi nga war a defak fi nga wartu dem ki nga war a ànd ak ki nga wartu ànd ak parce que am na ñoo xam ne dëkk ñoom koñ rek mën na la tig waxuma la seq ñoom relation wala sëy wala business wala dara su fekkee ne yow xamoo ko amoo galaaju góor sampuñ la su boobaa da ngay nekk ci nag nit ki bu ñëwee ñu tànq si njaq gi euh, sot fekk ñu ngi am ganaarug seq tiir mooy yi nga xam ne day mel lu ñi xam kii xam nañ ko bu baax ñu dugal ko ci biir gënn gi daal di jël and and inde inde wala wala teme boobu teg ko ci jël ay xal teg ko ci daal di tànq sotti mu fay saafara bu wàcc ci kaw ganaar gi mhm. nga ñëw seppi ganaar gi teg nee sangoo saafara bi jël ganaar gi bàyyi ko doo ko saraxe doo ko def dara nga koy bàyyi rek mu dem mhm. gis nga ni muy demee noonu noonu la yóbbee sa mboolem jafe-jafe sa ay say ay liggi lu mën a doon te sa mbir noonu lay tàkkee mhm. la ko yóbbu nag yow bul xam yaw tegal noonu rek nga dem la ko war a jël dana ko jël fu nga ko a def dana ko xam-xam du mbiri caaxaan te képp koo xamante ne yàlla dimbale na ba nga dugganteeg Saalum Saalum pire. waaw su boobaa rek nga xamante ne xam-xam mu ngi fam nekkoon ba léegi. mais gi gëndu cosaan la nga jël gënd gi teg ci kawam ay soble jam ci ay puso ba mu fël ci beneen beneen boor bi loolu liggéey lu mu doon. gën googu lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt dafa am ay sant dafa am ay téeméeri at jëm kaw. gëndu cosaan la gëndu maam. gëndu cosaan la mbiri mbiri maam ñi la. am na si yoo xam ne duñ ko ci mën a wax. parce que mbiri baatin la. waaye soble boobu ngeen gis am na luñ koy boole. Mhm. ñu defar la ñuy defar. nga jël soble boobu dugal ko si biir saabro fanaanal ko asamaan si tiim ko. nga xëy sangoo ko. ak puso yooyu ngay gis fu la laal du wér. Hmm? fu la lal du wér. boo ko sangoo ba pare tamit jël soble bi suulee ko noonu moog puuse yi képp ku la laalati wala muy jëm si yow day toog toog mel ne ay puuse moo koy jam yaram bi yëpp day yàqu ci biir. moo tax jamono jii képp kuy nekk di yàq la ngay songu ni problème yu bëree bëri ñuy nit ñi di dund songu nit rek xamoo kii nu mu toggee wala nangam ak nangam ak nangam man de képp ku jaar ci man wala ma jaarale fi ma war a jaar wala lu ma wër. képp ku ko laal dootoo ko ñaare. kooku moom mën naa koo mën naa mën naa mën naa koo garanti en tout cas daal am na ay mbir yu bëri dafa da fi ngeen ñu fekk nag tey dafa garaaw foofu du lu ne lañ fa mën a wax mm-hmm. waaye bu la yàlla dimbalee ba nga bind suuratul ba nga bind xisbul baxri xisbul mm-hmm. baxri ngay fexe ba bind nga boole ko la xalqu samawaati wala ardi akbaru min xalqi naas walakin aksara naas laa alamoon onze fois nga def ko téere poos dugal ko sa poos dootoo ñàkk alal dootoo ñàkk alal mbir yi mbir mbir yi mbir yi mbir yi soriwut. Ah. te yi mu ngi fi. waaye li ma doon wax toujours depuis biñ biñ tollee bi jamono bi rëbee ma ne na nan nit ñi kilifa yi génnee tur yàlla yi nañ génne ismila lanza mi nañ génne seen kurus te bañ jaaree fañ war a jaar yaakaar naa bi ma génnee wax ne lii ak lii ak lii ak nii lay demee yàlla dimbale nañu ba lépp lu ñu mos a wax amul dara lu si soppeeku loolu nag tawfiix ak di wax ñàkk wax sa bànneexu bakkan wax loo xam ne alxuraan ak sunna la tegu loolu rek moom moo la koy may. mais dafa am mbir yoo xamante ni buñ ciy wax ñun dañ ciy dut baaraam preuve la ñuy waxee muy wàllum këyit ak wàllum yëkkatiku tey nag la ñëw fekk dëggi dëggi njaqali fa nga koy defaree muy wàllum këyit ak wàllum ubbeeku moo xamante ni ku laal bokk la ku ko waaw boo gisee nit yenn saa dafa may oo. Mm-hmm. dama nangam moo ko moo ko lu doyee di man ne ko génn sarax nangam. Mm-hmm. su ma ko waxee sax day jàpp ne maanaam kii daal waaw dafa ma dafa ma bañ a ñaanal wala dafa am lu nekk ci man ba tax bëgguma ñaanal. maay mm-hmm. dem ba biir gis na génne ko ma oo ko waaye bu koy génnee gis nga mbiri duut il faut nga joxe ay millions du il faut nga nanga déedéet nit ki dafay ñëw am yaakaar ci yow nekk ci ay problème fexeel ba yow sëriñ bi bu ko yokk ay problème jaarale ko fi nga koy war a jaarale aajom faju àdduna ñëwal ko li muy siqa yow mu siq ko yow amul kenn mbindeef a ko wax ne ko fay beneen ba damay ñaan yàlla li may ñaan moomu ma ko li ma moomun mënu see mënu ma see nit ki bu amee ay sarax génnee ko ma liggéeyal ko mbiram dana soppeeku lu mu bëgg def mu def ko ak man kooku nag ku xam xaqiqatu salaatul fatiha kooku du du du ko def. mais lu ñu mënta wa ñàkk a waxtaanee mooy garab goo xamante ni réewoo réew dem na fa yëkkati ay millions jëndee ko ay machine ngir renforcer efficacité garab gi bu amul woon rentabilité wala bu amul woon efficacité du la ko jaral nga def ci siro def ci comprimé dem ba def ci poudre def ci pompe tubaab yi naar yi ñëpp reconnaître ko mu fay dugg légalement kon garab googu noonu bu buñ ko tuddee fii ci émission buñ ko tuddul ci émission bi échoué nañ muy naaru góor. balaa ma ñëw ci loolu. Mhm. damay joxe secret boo xam ne képp ku bëgg ubbee ko wala nga bëgg tàkk. fexeel ba def ko wallahi boo ko boo utiliser nga tàkk bu dee ay milliards nga bëgg. bu dee ay millions nga bëgg bu dee teral say waajur bu dee am ay kër. bu dee ay oto toujours nag lu may wax nit buy oto dara da nga war a xool ndax loolu mi ngi ci moom wala. annaasu akyeesu min am min an yamdaxu rajulan xataa yaraw andahu athara ixsaani bu fekkee ne da ngay oto nit bu fekkee yow da ngay wax ne yow da ngay loo xamante ni pour nit oto te yow te yow boo daal bu fekkee da ngay wax ne da ngay defal pour nit ñi am këy te yow buñ xoolee sa passeport amul benn tampon mosoo dem fenn demoo fenn ci àdduna du Europe du Afrique du feneen hmm. nga ne ko kook war nañoo bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax su boobaa da ngay fexe ba nga bind vingt et un mooy tolloog vingt et yi nekk si Fatiha. nga boole koog mu um, reen ron ron. Mm-hmm. séeréer yi ñoo koy wax ron mais olof sibi la koy wax tam gudd. gis nga ni mu gën a kawe ci garab yi noonu da nga tiim sa masse. képp koo générale wala ngay ànd wala si business bu mën a doon danga leen fa bàyyi dox sa dox. Mm-hmm. boo ko utiliser rek gis ko. wàllu naaru góor boobu nag. yàlla daa def nekkatul li ñu présenté léegi léegi nii rek gis nga. te kooku xam xam nga ne kilifa la. Hmm. ndax yàgg naa ko jox garab. waaye dañoo gëj a gisee. Hmm. si événement bi mu ñëw ma jox ko naaru góor bi nga xam ne ma ko liggéey comme comprimé nga léegi moo ma oo ñu dégg commencé. Hmm. mu ne ma sëñ bi lii ma liggéey ci yow. te gis nga américain yi ciy liggéey ak man ak ñi xam ne jugee nañ ba réew ba réew ñëw di xool ak nangam. noonu rek la demee woon demoon na ba li muy dugg seen dëkk bi jaaxal leen. tax ñu ñu ñu laajte ak affaire bi ni mu demee ba ne ba ne dañuy liggéey dañuy loolu nag lu nga wax rek bu fekkoon ne amul benn efficacité ba yaakaar naa millions yi ma ci def ba jënd ay machine euh, di ko def ay genre comprimé di ko transformer sirop wala yeneen comme ni ngeen ko gisee ci wàllu cabinet bi kooku yaakaar naa konoon du ma du ko jaral l'essentiel daal képp koo xamante moo xam nanga am quatre-vingts ans am suukar da am jabet na nga am prostate na am lu mën a doon ndoxu siti hémorroïde ulde prostate mm-hmm. eh, ñàkk envie sexe boo xam ne du dëgër wala muy dellu wala bu jugee di wàccaat ngay gaaw a yegg yépp boo ko jëlee dangay ngay teqalikoo moom dafay raxas sa deret di raxas sa biir mm-hmm. mooy naaru góor day faj ba mu wér képp kuñ ko jox euh, wéroo waxuma tenewoo de képp kuñ ko jox wéroo ñu dellool sa xaalis waaw lépp li muy faj yëpp na wax dëgg yàlla ay ballonnement ak lekk mu reesut ak estomac gin képp koo xam ne daal da ngaa ñëw ba jël traitement naaru góor boo mooy soxlaate leneen lay doon waaye du doon loolu na am ñeenti soxna bis boo paree si ñoom rek yaakaar naa ne ñu xam ne góor mu ngi leen euh, mu ngi mu ngi doog seq ak ñoom. balaa ma ko fàtte sëñ bi damaa seetlu ni da ay ci wàllum jat. waaw waaw côté yooyu du ma ci du ma ci xóotu bu baax a baax. Mm. waaye daal l'essentiel xam naa bu baax a baax a baax ne. su ma bëggee ne ñaari nit ñi dañuy ànd. waaw bu àddina bi yëpp doxoon ne duñu ànd dañuy ànd. su ma gisee ne nit kii suba dafa bëgg a def wala nangam wala nangam. nangam bu ma paree li may def tànkam du du du buuse te fi ma toog bu ma toogee si suuf rëdd li may rëdd. dëgg sama tànk jet li may jet tafli kooku jeex na. ci wàllu noob ci wàllu këyit ci wàllu nangam parce que bëri na fii ñoo xam da ngay dégg ñu naan ay man Euh, euh, nga gis ñoo xam ñu bëri Europe dañuy am yàlla daf leen di nattu am ñoo xam dañ leen di jàppal waaye ñu dem am yàgg woon leen ginnaaw wala seen moromi Sénégalais ñoo leen di dëddale wala seen mbokk wala ñoo leen yàqal. kooku nag ñi nga xam ne yàlla def nañ ñu déggante ji yàlla defal na si tawféex goo xam ne kawe na seen njort te dañ may wax won ma ay preuve ne ma ñii ñëpp seen yëpp jox nañ leen suñu xaalis ñii yónneewuñ ñu sax garam ñii gisuñ dara ñii keroog lañ leen gëj a dégg ñu boole ñu moo tax nit ñi dañ delloowaat seen xel bu baax a baax si yàlla te ñuy ragal yàlla te sellu di bàyyi xel ëllëg ndax fii lu fi mën a xew yàgg-yàgg dinañ la waqi suul la te képp koo xam ne woo dara defal lu la neex boo dee yàlla def lu ko neex sëñ bi ci actualité laa bëgg ñu teg fa suñu baaraam Birame Souleye dafa génn pour premier sorteem gannaaw ba mu jëlee ba mu nekkee ministre mu wax ci julli gi baalu Sénégalais yëpp ak waaye wax loo xamante ni du def cee am ci wàllum parrainage yu làmb yeeg wàllum parrainage bu match de gala yeeg yooyu ñu bëri nag gisee nañ ko positif waaye am na ñoo xamante dañoo gis ni daal la mu wax da cee juum. waaw moom daal coow la ca teen ba daal. Mm-hmm. ñeemut baag la rek. te man dama wax ne waa ëhlu eh, làmb dañoo war a ndokkeel Biram Souleye ndax dama gis ne erreur yu bëree bëri yoo xam ne am na si si ñoom dañ ko dafa jaarul ni war a jàll àq bi ñu leen war a jox joxuñ leen ko moo tax mu demee noonu ndax su fekkoon ne li ñu war a am li ñu war a jot dañ leen ko jox ni mu waree ak affaire mbir yi mat normal ñoom tamit ñu organiser wu yaakaar naa duñ soxla di tuddee kenn mhm. boo demee ci àddina bi ñun ñi nga xam dañuy wër ci ay kii doo gis benn ñu ne MMA bi wala kii kii lañ ko tuddee. waaw parce que dañuy génne seen i millions sponsor yi ñëw. waaw sponsor nag buy ñëw day day gis loo xam dafa dal xelam. Mm-hmm. bu sponsor ñëwee rek après doo am benn problème ñoom loolu la ñu war a régler. su boobaa dootuñ soxlaati sax ñu naan kii la ñuy tuddee kii wala nangam nangam. Mm-hmm. intérêt yëpp nag bu dajee. intérêt Sénégal taxaw dañuy jël yëpp te ko fee ñu teewal intérêt Sénégal parce que loolu suñu intérêt ñun ñëpp. waaye yaakaar naa ne Sénégal fii ak ni mu demee ak cosaan yi ak yi nga xam ne si Sénégal la bokk kenn du taxaw yi amee xel ne da nga koy bañ wala dara mais nag nit ki en général moom su fekkee da nga ko bëgg critique rek lu mu wax rek mën nga see jaaree fenn ba critique mais nit ñi bala ngay gis nga wax bal bala nga yëkkati wax rek na nga xam bu baax a baax baax fii ñëpp benn lañ ñoo bokk réew mi mm-hmm. li am solo mooy gis nga diggante diggante su meekoog soléere il faut yaramu neen am ci mm-hmm. moo tax mbir yi dan toll foo xam il faut mu xaw a mu xaw a ñaaw tuuti. waaye nag du tegtal ne dafay ñaaw wala dafay yàqu. Mm. daa fekk nag mbubu mi ñu war a sol. bii avant muy ñëwee force yaramu nen dana dox ci diggante bi. waaw loolu lu nit ñi war a bàyyi war a bàyyi xel la xam ne ñii defar rek moo leen tax a jóg. Mm-hmm. liñ fi daj bu fekkoon seen entre bopp la jën jaay nañu askan wi ba topp seen i milliards dem tukki wala ñu nekk si leneen. Mhm. liñ daj yëpp nag yaakaar naa ñii di wax ñii ñëpp kenn daju ko ci. Mhm. waaw kon su boobaa ñoom buñ hôtel yi euh, dañoo war a mën a gëm ne kon defar réew mi ñu jàppale leen fexe bañ a bàyyi coow bàyyi coow yeeg yooyu noonu. Mhm. lépp nag loo xamante ni tey loo gis la ci yu mel yaakaar naa ne ñàkk bàyyi xel la rek wala nga nekk nga nga ngay nga ak ci mbir yi toog muy dox. waaw yu mel noonu man sax góoma euh, mbir yi toog muy dox ndax Euh, yu bëree bëree bëri yoo xamante ni jàng jàpp nga ne dañoo toog muy dox fekk investir nañ ci loo xamante ni chaque jour mi ngi leen di dara. wala tey jox nga borom oto bi mu lay dawalal mu lay verser est-ce que da nga toog muy dox dajoon nga lu nekk wala nangam yàlla mooy séddale ku nekk ak li nga xamante ni moom la lay moom la moom la lay andil. ñu ngi ñii ñu ngi daj ñii bu ñu yeewoo ñoo gën a jàpp ne tey ñooy toog muy dox buñ buñ buñ buñ xëyee ñoo leen njëkk yeewu ñoo leen mujj dugg seen kër kooku yaakaar naa mu ngi def ay effort mm-hmm. waaye yàlla nag moom wër gémm gum xar rek dana fa def wër sax waaye dafa waxoon ne law tawakkaltum xaqa tawakkuli la ruziqtum kama ruziqtum tuyur bu fekkoon da a wakkilu si yàlla comme picc yeeg njanaaw yi ni ñu mel. ñoom day wa taroox bi taanaan ñoom dañuy xëy fekk ñu ngi xiif wax dëgg yàlla boo xam ne bu si nit ñi jàngatoon dellu ci bàyyi dellu si nangam yaakaar naa xol yi dina feex danañ dellu si yàlla danañ doyloo yàlla dinañ xam ne fii yàlla rek moom moo fi nekk te moom moo mën a defar mbir yi waaye ñii daal instant euh, dañoo am pour bëgg defar ku bëgg defar nag danga koy jàppale waaye doo dem ay tànkam mm-hmm. te su fekkee ne mbir yi am na fu jëm yow fexeel ba bu si ñaaw mar bu la bu la taxee naan fóotit bu robinet ubbee mm-hmm. nga ruus Mame Mbaye Niang rapport bi nga xamante ni bañoon na ko ba jàppalu ci Ousmane Sonko xañ koo dem élection génnaat na ne rapport am na dëgg-dëgg taxawaayam ak li nga xamante ni ñu ngi koy wax ci audit yeeg ñu ngi koy wax ci bërëb geroog wax wax ji mujjee li président mujjee wax ci audit yi ak yeneen yi nga xamante ñu ngi koy xaat ci ñuy jëloon alalu réew mi delloo si ko sëñ bi loo ci wax. moom daal li ma la mën a xamal daal mooy foofu sax li ma ci li ma ciy wax mooy képp koo xamante ni ndax fi réew mi daa bëri ñoo xam ne seen xol daa naqadi. Mm-hmm. dañoo jëpp ñu bëri. am na ñoo xam ne mérito wuñ sax taxaw ñu leen di tàllal ñu leen tàllal micro te li gën a bon mooy ci àddina ngay fen ba gëm say fen te ñu bëre bëre bëri ci réew mi loolu moo leen moo moo leen dal loolu ñun nag la ma yàgg wax si ñoom rek wa makaru makran wa makar naa makran wa hum laa yash'uruun dañoo doon teg seen ay stratégie teg problème di kii di tëj di jëf lii nangam nangam yàlla dina seetaan rek bi ñu demee ba pare rek mu bës contact courant bi kope ñu jommi mm-hmm. te noonu la demee te yaakaar naa ne nag wér wér jaari ndaari moom moo moom moom moo feeñ ñi te euh, képp makaana lillahi daama wa tasal wa makaana li xeyrillaahi salaan fasal lépp loo xamante ne yàlla ak jullit ak dëggu ak askan moo tax kooku dafay jëm ca kaw waaye lépp loo xam ne ay tappaleeke naxake sàcc kooku yàgg-yàgg da ngay ndërmeelu da ngay weeru waaw lépp nag loo xamante ni comme euh, nu mu tudd savaru ngaana moom xaar ko si virage ba rek waaw yaakaar naa ñoom ñëpp foofu la ñuy mujjee ak ñoom dañ ni buñ demee ba dugg ci biir audit yi ñu bëri daañ leen arrêté ñii ne bu ñu demee sax ba wax ba liggéey bi tàmbali dëgg général Moussa Fall mën nañ koo limoger mën nañ koo génne ci armée bi est-ce que gis nga général Moussa Fall ak lim servir Macky Sall yëpp gëm nga ni Diomaye mën naa koo bañ a wóolu bay liggéeyante li ma xam daal ba xam ko mooy. ñoom dañ leen a jiital. ni ku nekk na def li nga xamante moo la war nga bàyyi sa morom def la ko war. Hmm. maanaam dafa am loo xam ne mbir yàlla la am loo xam ne mbir nit ñi la nit ki soo bëggee noppalu da ngay def da ngay liggéey te bàyyee yàlla liggéeyam. Hmm. ak kii dafay def nii kii dafay dugg aljana wala dafay nanga wala nii lay demee wala nii yow li la war mooy nga xëy def effort yàlla jox la. Mm-hmm. am ma ëllëg nu muy demee ak yooyu noonu loolu liggéeyu yàlla bàyyi si loxo yàlla mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. su ko defee nag ñoom xam nañ bu baax a baax baax ñu ñu téye ak ñu ñu dut ñu ñu jàpp ñu ñu jàpp ñu ñu fal ñu ñu dut fal. intérêt Sénégal ma képp kuñ gis ne yow mii nii senegal mën na amee man naa amee si yow jàmm mën na amee si yow tawfiq mën na amee si yow yëkkatiku gëm naa ne dinañ la jël lépp bu fekkoon dafa am ay sanction yu ñu la war a def wala ay daan wala nangam wala ay lu mën a doon dañ la fa jaarale. su fekkee ne loolu may na la nga gën a kon nga kon ne service ki dañ lay fay. bu fekkee ne mooy lu ko tamit damaa gëm ne dañ lay génne parce que loolu lépp loo xam ne mos nañ koo wax luñ mos a wane man loolu laa gis ba may may gisee ñuy doxalee neneen. sëñ bi tey yan révélation wala yan sarax nga mën a may réew mi ak Basiru mi nga xamante mi ngi doog a ñëw ak li jig réew mi ak Basiru ak képp koo xam ne daal bëgg a bëgg a jàmm nga gis chaque jour nga ngay ngay gën di jëm kanam di te bañ a dellu ginnaaw na nga fexe yow ak ak sa njaboot Sénégal yëpp nañ ko andi génne wala buñ ko génnee dinañ gis senegal loo xam ne mosuñoo mbir jàpp ni mbir gaawee na noonu waaw amul rendi amul dara jëndal juróom benn kilo ci dugub juróom benn kilo ci mboq juróom benn kilo si saañu juróom benn kilo si bësi saañu ñu ko xamul comme dugub lay mel mais moo gën a dijj soo paree nga sarax ko da nga koy xaaj après ñaari xaaj yii nga def ko si mbuus bi yii nga def ko si mbuus bi demal ba rond-point rek nga sarax ko gumba nga demaat ba beneen rond-point jox ko koo xam ne daa pare si njur nga wane ginnaaw doxi sa soxla lépp lu mos a taxaw sa kanam wala sa doom juñ tëj wala nga nekk si ay jafe-jafe wala koo xamante ni tey dafa të wala muy ay tuux di nekk si ay problème wala yoo xamante ni yoonoon ko topp ay jafe-jafe daal wala ngay ragal ay problème si sa àddina si sa kanam. yéene ko rek ko rek nga def ko. boo ko defee yàlla dina la defal tawfiix yoo xam ne mosoo jàpp ne kii lu bëree bëri nag lu may wax am na yoo si écran waaye képp ku yàlla na ma dimbale. ba nga oote ci yi incha allah rabi numéro cabinet moom ni ma koy waxee toujours. comme dañuy tëju bëri wala ñuy wala ñuy nekk ci àll beeg yooyu numéro cabinet waxtu woo ootee. rek di ko di jot mooy 77 223 41 41. sama numéro personnel nag moom ngeen gis si baaru écran bi noonu képp koo xam ne oote nga si jotoo ma bàyyil ma message. lu mu mën a demee rek di nga toog toog gis sama message ma tontu la képp ku ma woo jotoo ma ma paree dinaa la rappeler incha allah mënoo ma garanti nag ne waxtu woo ma ooyee rek di ma jot si sens mais képp ku ma woo jotoo ma moom dinaa la dinaa dina dinaa la rappeler di sant yàlla bu baax a baax xam ne àddina bi mag ñi nañ yërëm xale yi xale yi respecté mag ñi mm-hmm. buñ ko defee rek tawfiq mooy ñu dellu ci diina dellu si lislaam xam ne wa man lam yaxkum bi ma anzalallah moom fa ulaayikumul kaafiruun rek moo fi nekk fa ulaayikumul zaalimuun fa ulaayikumul faasiquun ñett yëpp nag baaxut da ni jullit bu nekk da ko di ko di ko di di ko moytu fexe di respecté waajur di leen yëram képp koo xam da ngaa mën a defal sa waajur dara bul ko waaj bul ko ko waaj bul ko waaj xamoo ndax yow léegi nga dem wala sa waajur léegi mu dem te lépp loo jiitulut foofa doo ko fa fekk yooyu daay mbir la yoo xam ne ñu war a bàyyi xel di gën di foog di gën di yaakaar di moytu di fexe nag ba samp ndax samp mooy lépp boo ko defee jug si sa bopp rek yàlla mën na la defal taw doomu aadama comme raakool la rek ndox mi day bëbb di ñëw waxtu wu ndox mi ñëwatul rek raakool bi dafa fatt wala moom ay bant boo ko secrétaire rek mbiri a bon foo nikki nga raxas sa yaram ba mu wecc boo ko defee lépp luy ñëw rek day ñëw wàllu rab du la sonal yaakaar mu tas du la sonal lépp loo yaakaar dafay ñëw lépp loo déposé da nga jot loolu nag yaram wu set ak koo xam ne dafa am cër si yàlla am cër si moom moo la si mën a dimbale da nga bàyyi ay caaxaan ak ñoo xamante ni ay fétiche la problème wala ñu sacrifice la nga nekk si ay problème di gën nekk ay jafe-jafe ñu tëj la loolu lu bàyyi xel lu jar di moytu la hmm. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax daal di leen gërëm yéen tamit wax dëgg yàlla ñu attan ngeen bu xasee ba gis xam-xam fu mën a nekk rek da ngeen fexe ba ba na te tàng na. rawatina ñu jugee ko ci événement bi jugee ko ci kor gi waaye comme ñu ngi fi rek ñu ne balaa maa génnaa dem wala dara ngeen ñëw fi wax dëgg yàlla loolu loolu ñu ngi ci am kontaan di am mbégte bu baax a baax di wax ñëpp ñuy abonné di di aimer di di partager. Mm-hmm. suñ ko defee in seen bopp lañ ko defal ndax dinañ jot. mbir yoo xamante ni mënoon nañoo dem réew ba réew wala ñu génne ay millions te duñ ko am si jaamu te si jaamu yàlla yu xeeb yi rek ñoo koy joxe bañ man bañ mën see jëriñ kon na ngeen partage di di kii bu baax a baax baax xam ne mbir mi seen mbir la mm. du mbiru kii du mbir kii képp ku ci def rek da nga ci gis sa bopp te um, um, man amila saalihan fa li nafsi waaye wa man asaa fa boppam mm. wa ma ala rasul illa al wa ma te bu fekkee amoo beneen question mm. saraxu président Bassirou Diomaye Faye waaw kooku kooku ñañ ci war a wax ak ñañ ci war a def ak fañ jaar bañ assi fii ñoom xam nañ ñun xam nañ loolu suñ mission la wa ma la rasul illa al balagh wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh question piège la woon ndax ñam ca war a jëflanteel ña nga ca te bim ci nekkee ba léegi sentir nañ ni mi ngi ci tey nag bu ngeen gisee fi ñu ñëw xam ne sori na lool jafe na lool waaye ñoo leen diggoon ni fu xam-xam ne daañu jaral ñu jëlil leen ko tey yéen ñu jaral ñu dem ba ci biir Saalum dugg biir Saalum ci àllu Saalum bi dawati kilomètre àll bi daañ leen ko wan ngeen gis ni xam-xam fu mu ne rek dañ koy jëli waaye sama góor gi rawatina fu mu ne ci réew mi wala ci bitim réew dañ leen koy jëli ndax xam le ne ci moom wóolu ko itam kooko booleel du la teg gàcce waaye ku ñëw ci moom it du am gàcce doo am gàcce benn yoon xam-xam moo ko waral ndax bi mu deree bi matee jàngi dafa jàngi bi mu deree jat coono dafa jat coono li koy dikkal nag kenn xamul moom sax xamul ndax xam-xam bu ñoree rek bët jaajëfal internet Allô senegal gépp baaluwaat leen ak julli gi ndokkeel leen itam ci julli gi jox leen dig daje ëllëg seen yeneen émission jërë ngeen jëf